Touba Techno Plus mi ngi fii ci marché Ocass centre commercial Daaru Xuddoos lépp lu ngeen soxla mu aju ci matériel informatique bu mu mën a doon bureautique ba ci électronique ba ci ay impression ci grand format adresse bi benn la Touba Techno ay imprimante à recyclage automatique ay cartouche imprimante ay clé USB ba ci 64 giga modem routeur photocopieuse papier ay câble de réseau ay téléphone portable ba ci ay téléviseur LED ci dimension yépp bu dee da ngeen soxla ay impression ci ay bâche yu mag ci dimension ba ngeen soxla ba ci ay affiche publicitaire ay impression yu jëm ci ay t ay photo ci dimension yépp adresse bi benn la Touba Technoplus Touba Technoplus mooy ànd ak yenn ci waxtaan yu ajjuma yu am fii ci Touba Aliya mbokk yi julli ci gannaaw bu sant yàlla julli ci yonenteen ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dugg ci ni ci dugg ci jàmm ñu àggale mën cee jëfe li nga xam ne moom la sëriñ bi war a digle digle amiin tey nag tomb bi ñuy fas yéene fàttalante ci loolu lay xaw a aju mooy taxawaay bi nga xam ne moom la sëñ bu mag bi taxawoon ba waral fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar <clears throat> ñun ñëpp xam nañu ba àdduna tàmbalee ba léegi bokk na ci natt yi gën a rëy yu yàlla nattoo doomu aadama yi mooy bi leen bindee bind dëgg ak xam ne diggante dëgg akub safaan faaw ay doomu aadama yu baree bari tënku ca ñii tënku ci dëgg ñii tënku ci safaan ñii tënku ci lu baax ñii tënku ci safaanub lu baax <clears throat> dëgg boo ko déggee safaanam mooy neen lu baax boo ko déggee ab safaanam mooy leneen waaye yit gëm yàlla gu wér gu tegu fa mu war a tege it dafa dend ak ab safaanam yal na nu ci yàlla musal ñaar yooyu nag bi fi nit ñëwee ba fii mu nekk kenn ku ci nekk day puus moroomam ngir jël palaasam moo tax ku bokk ci kuréel bi féeteeg suñu boroom war nay sant yàlla bu baax ndax moom lu yëfi yàgg-yàgg mooy féete kaw ndax ku wéeru fu dëgër di xeex di joxlante ay kurfañ bukkut ak ku wéeruwut fenn doonte nag léeg-léeg ak moytu xaw a dal ki nga xam ne moo féete ak yàlla la muy moytu mooy ku yore caqub wurus day moytu ku yorewut ab caq ci yu bari waaye nag téewul bi yàlla waxee ci alxuraanul karim aayaat yooyu ma jàng ne moom yàlla mooy ki nga xam ne moo bind ku dul yàlla mbindeefam rekk nga yàlla mooy boroom ku dul moom as njaamam nga ci ñim moom nga bokk nee na nag bi mu bindee ba noppi lim bind asamaan ak suuf bokk ci te nit foofu lay dund ci diggante boobu rek la nit di dund foofu la nit xamagoon ñi nga xamanteel ñépp ngeen di joxlante diggante asamaan ak suuf rek ngeen dajeegoon <coughs> yàlla nag nee na daa bindaale it kenn ku ci nekk mu tegal la ci sa pegg yoon wi ngay jaar ne la lii mooy lu baax lii mooy ab safaanam daa lay jox rendez-vous nag bis boo xam ne bu agsee mu xool ba xam loo fa nekkee woon ban ban lan nga ca jëloon ci ñaar yooyu yàlla noonu yàlla dimbale bañ bokk ci ña nga xam ne fa mu bëgg ñu jëm fa fa la ñuy jëm lii tax nag euh, jaar ci yoon woowu ba bu ëllëgee ñu bokk ci ñi nga xam ne yàlla day wax ci ñoom ne radiyallahu anhum wa radu anhu mooy kenn ku ci nekk da ngaa war a taxaw temm ci diggante bi nga fiy def ak néew diggante asamaan ak suuf si diggante bi nga fiy nekk. nga amal nit ñi njariñ boo fi jógee it man fee bàyyi lu lay jariñ fa nga jëm ndax ku fi jógee rek programme am dagg na waaye dara féetewul kaw ci bàyyi fi nit ñi lu lu ñuy jariñoo njariñ la di la fa fekk mooy nga fexe ba aw nit jaar ci yoon moytu safaan ba jëm ca yoon wu baax wa di yëkkati it saa su nekk luy wan nit ñi ne leen feela lu baax nekk liggéey boobu nag moo tudd jihaad buñ ko tuddee ci jamono ji ñëpp tiit ndax dañoo yàq baat bi jihaad tekkiwut lu dul euh, jànkoonteeg sa bakkan ba daan ko jànkoonteeg sa bànneex ba daan ko jànkoonteeg adduna ba daan ko jànkoonte ak seytaane mënu si koo daan waaye seytaane mënees na ko naagoloo ci sa bopp ndax bu dee fu mu wootee du la fa fekk doo ko wuy ji boo xewlee doo ko ko wax bu yàggee mën naa naa ko ci yow mën naa songu ñeneen waaye ñi mel ne yow soo fexee bañ bari fi mën nay song rek waaye du masa daan ndax nit ñi gënoon nañu fee néew doole mu da leen song ba fi mu toll nit a ngi lor lor di dox te lor lor ja la koy may rek mooy féeteeg suñu borom jihaad boobu nag am na fukki xaaj ak benn des na ko def bakkanam nit dina jihaad ak bakkanam jihaad ak sa bakkan tomb boobu rek lañ ciy jël mooy bii sëriñ bii defoon ci ay jamono ba waral ñépp di ko tuddoo di dund ci moom te defaluñ ko dara jihaad ci sa pas-pas luñ la mën a tàllal lu lum rëy rëy lum nooy nooy lum neex neex nga ne wa maa indakum yanfadu wa maa inda allaahi baaqin waaye des na ko defit ci nit ki lam xamagus néew te man koo wax ci aw làmmiñam saabu bu ñaar ak ñett dajee mu laabire leen ca ndax sëriñ bi kat nee na képp koo xam ne xam na astuut ne mugg ak moom ba yóbbaale ko bu demee dana xam ne xamle woon ko moo gënoon téye ko ba yóbbaale ko fa kullu man bi ilmi qad baxila fa innahu qabla al mamaati yubtala waaye des na ko def it ci alal waaye des na ko defit ci bindal nit ñi ay téere yi ñu fi yu fi ñu fi jàng ba ba adduna tukki waaye it des na ko waxit des na ko waxitam ci aw làmmeñ doonte xam-xam bariwut it ngay wax lu baax ci diggante nit ñi rek te mënoon a waxub safaan waaye des na jihaat fexe ba nekk ci kanam nit ñi ku ñuy roy boobu dara ëpp ko ci solo waaye des na jihaat it ci jeexal sa àdduna sépp ci yor ay gone di leen teg ci aw yoon siraatal mustaqim am na boroom xam-xam bu wax nag ne jihaat yooyu ma tudd yépp buñ leen boolee ñoom ñépp tënk leen ci ñeenti tomb dana yomba xam lool euh, mooy fexe ba jiital jihaadu nafs jihaadu nafs ba ci jiitu mooy jàngi xam-xam ba xàmmee boo xàmmee kenn du la mën a dugal ci loo warut a dugg waaye kenn du la war a gé kenn du la mën a génne it ci loo xam ne roo caa génn danga nga caa war a toog xam-xam bu am njariñ waaye xam-xam bu am njariñ it li koy tegtale mooy jëf ju baax fu mu jaar ñu xam ne fii de borom xam-xam fa jaar ndax wax nañ ne lu ne mënees na koo defaraat ba mu def lu borom xam-xam yàq yal na yàlla musal ci loola. jihaadu nafs moo tax suñ bu mag bi way ci ay téereem. yàgg nañ ko wax wàccoo ak nit ñi bu yàgg a yàgg ku doxul yaa doxul waaye moom ma ngay dox te du taxaw ndax lim yor amul fu mu ko yemale ginnaaw mbind la moom mën naa dem si ñu nekk ñu jàng ko jël ko moo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci xadisam boobee ne jihaadu nafs dara jiituwu ca gàddaay ci fu bakkan sanc fu bakkanee sanc fu bakkan sanc nag mooy fu ay ñaawteef bari yañ ca mën a tudd ak yañ ca mënta tudd bu yaatoo ci suuf si fu mu la fekk te yaatu fa soo ko mënta di sa loxo gàddaayaal dal ne jihaad nag ba ca gën a rëy gën ca mag mooy nit ki daan bakkanam daan bànneexam ndax yi ñu tudde jihaad yépp léeg-léeg aw nit jël ay gànnaay ku daanul bakkanam mënu ko ku daanul bànneexam mënu ko ndax di dem te xamoo da nga dellu si waatam loolu bànneex nekku fa bakkan nekku fa bu fekkee kay woote jar na ko moo tax cig tënk bokk yi euh, jihaadu nafs boobu te xam-xam di ko wammat ba mu xàmmee fu mu war a toog ak fum war a jóge sëriñ bi nee na bala nga dem di sonki sonki bakkan ak sa gànnaay dangay wut foo koy dugal ba noppi foo koy tëj kaso boo koy tëj boo xam ne boo ko fa boo ko fa tëj génn la topp ndax nee na bakkan moom gànnaay bi mu yor di ko xeexee ak nit ñi mooy day fexe ba nit ñi di togg di yàkk rek foo raxasoo ñu waxaat la fu dàqale lañu togg nga wutiwaat foofa dal ne ku regg nag nelaw te ku nelaw lu bari raw ko soo bëggee xeex ak sa bakkan nag da ngay fexe ba boo ko jàppee nga dugal ko ci kaso bu ñuy wax xiif euh, ci ay riwaayaat yu boroom xam-xam yu tëgg ci jàngale mu leer dañoo wax ne ba ko suñu boroom bindee ba noppi daa wax ak moom laaj ko mooy kan mu ne ko yoway yàlla man may bakkan lu nekk mu def ko ko dóor ko taxawloo ko sindal ko ci sawara yendal ko ci naaj saa boo ko laajee mënoo ko yow la yàlla man la bakkan waaye ba mu ko mosalee xiif ba muy lor lor yi da ko ne yow la kan mënoo ko yoway tabaarakta wa taalayta ko yoway kan ne ko man as nja sas njaam la ubayduka alxaqir wa daif moo tax li ma ne xam-xam mooy tax nit ki mën a jihaad ak sam sëriñ bi moo ko bind am na ci bayitam yi muy wax ne bi ko gaa yi jàppee di ko yóbbu dañ ko ne ab jihadiste nga lañ ko tuumaal loolu lañ ko tuumaal jàpp ko génne ko këram tàggale ko ko njabootam di wër ay këram di xool fa denc ba far bañ bañ guñ ko bañ fés lool ci ni ñuy seete ay bagaasam ak añaane guñ ko añaane ak ndax nit ñi enquêté ak njabootam mu ne leen nag li ngeen wax dëgg la man day ci jaama yàlla yi laa bokk bokk ci ñi tënku ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene fu mu tegoon tànkam ñu teg fa sama tànk li ngeen wax ne jihadiste laa nag lu wér la loolu Sëriñ Tuubaa moo ko jëkk nangu waaye nag damay jihaad ngir yàlla jihaad ngir yàlla sama jihaad nag mooy ci xam-xam bu leer lay tege ak jëfe xam-xam xam-xam bu leer ak jëfe xam-xam axrajtumuni naatiqiina bi annani abdul ilaahi wa innani la mujaahidu innani la mujaahidu wa danantumu anna almadaafica indana walkullu minkum du qilan wa yuxaasidu wa maqaalukum xaqun fa inni abduhu wa xadimu abdillahi wahwa alxaamidu wa maqaalukum inni ujaahidu saadiqu inni li wajhi llahi jalla ujaahidu xam-xam yi nag baat boobu la la ko tëgge la ko tëgge xam-xam yi ci xam-xam yi bu ne woon inni ujaahidu bil ñu mën koo tënk ci ne ta xam leneen lu bokkut ak la baayam nekkoon ak maamam kese ci jàngale fial fail mudaari fialu maadin fialu amrin fialu mudaari jàngale maska yi jàngale xaraf yi ak yekku niru ci ni ñuy dégge lu alxuraan di wax waaye dafa tënki nit ñi ne leen wuti leen xam-xam bu mën a doon bu dee bu am njariñ la rek bil ulumi wa bi tuqaa mu tax euh, cig tënk rek Euh, am na ci jamono Seydina Omar radiallahu anhu li ma ne ci xam-xam bu wér a wér la jihaadu nafsi di mën a ame dafa am ku waa ruum yónni woon ruum mooy fii turki nekk léegi ne ko demal xoolal ma jullit yi ba xam ci lu ñu nekk aw rej li ñuy wax aw rej baat boobu ci lay yem aw rej daal wolof xam na ko mooy koo xam ne day ñëw ruuru ci sa biir kër nga defee ne ci waa kër gi la bokk ci ay wax ak jëf te fekk bokk ci lu mu yóbbu lay wut loolu mooy aw rej waaye kooku bi mu ñëwee nii Tuuba di dunde rek la dund ak jullit ya ci jamono Seydina Omar radiyallahu anhu boo ñëwee ñu def la ni seen bopp dugal leen ci seen néeg ba ñuy fanaan wane la la ak seenu njaboot nuyoo la ak ñoom bu ñuy lekk na la bismillah bu ñu naan na la bismillah bu ñu daloo ci sa kanam daloo waale la booy dem ñu yawe la waaye ba mu delloo dana ña ko yónni woon fee daal la ma fa gis ñuy jafe fexeel lañu ndax ñu man seen bakkan ya lañu bu bu bu bëccëgee bu ñuy war fas yi di rawante fas di ci yéega nu nekk di ci wàcce nu nekk di sànne nu nekk di jam da ngay defe ni lii dong lañ man waaye su guddee ba ñépp ne baasin yàlla da ngay defe ne kenn ci ñoom nelawut dañu naan fojjat jóg di taxaw ba bët set wëcc moom la alxuraan wax ne tatajaafaa am anil madaaji' yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun waaye nee na it diggante bi nga xam ne nekkuñu di war ay fasaka wàcc di entraîner bu guddee ñu julli it téewut fu ñu nekk kenn du fa dégg riir mii nga xam ne moom la ay yamb di àndal fu ñu jëm wala ay chasse avion di avion yi bombardé riir mu mel noonu ngay dégg ñuy riir di jàng alxul alxuraan guddi ak bëccëg saa bu ñu nekkut ci lañ leneen daal ñu ngi ci foofu lañuy ñu noppaloo kooku ne ñooñu de kon mën nga leen a rey waaye lañ àndal kenn mënu koo rey muy pas-pas yal na leen yàlla fay ñoom ñëpp moo tax kenn ku nekk war naa xool boppam bu dee der bu ñuul la yor te di jullit te dëkk ci réew mi rawatina wala nga dëkk ak Sénégal te xam sëñ bi su wooteeb fukki fa ak juróom-ñett ñëwee sëriñ bi dana joxe ndigalul fàttali ko sëñ bi bi mu koy wax Cheikh Sidil Mokhtar ren daf ne maa ngi leen di fàttali waaye xam naa ne kenn fàttewu ko joxe ca ndigal yam ca joxe waaye woo wooteb sëriñ bi ak tukkeem boobu ak ndigal lam ca joxe woon moom ci boppam mënees na cee tënk ñaari tomb rek yoo xam ne lu ci nekk ci mbindam la te su boobaa at yiñ ko màggalagun yépp dañuy laaj kenn ku ci nekk ana fu mu toll ca loola bi ci jëkk mooy jihaadu nafs bi ko sëriñ bi def ci lañ ko jàppe génne ko këram tàggale ko njabootam te xemutoon fu mu jëm ndax lan jàngoon na ci alxuraan bu yàgg ne bu ëllëgee yowmal qiyaama yàlla dana layoog aw nit ne leen lu leen teew woon gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne xëyim lu leen teew woon a tënku ci ay ndigalam julli waxtu yi juróom woor weeru koor di liggéey lu lew di ci génne asaka di ca dem makka di jokk bokk di saraxe di bale ñu ne fañ nekkoon ay minoritaire lañ fa woon dañ faa gënoon a néew dañ ñu daan tere lii dañ ñu daan tere laa mu ne xanaa foofa rek moo fa nekkoon ci suuf si alam takun ardullahi waasiatan fa tuhajiru fiha ku tudd fukk ak juróom-ñett da nga tudd gàddaay jóge ci say bokk tàggoog ñoom te xamoo kay nga leen di gisaat fiñ rafet a njortu ci ne dina ñëwaat jamono demee wutoon nii mu deme ba ku nekk fam ne nga man di xam ca lam nekk muy xam ci li ngay ne toog nañ benn bis daal ab bataaxal ñëw boo xam ne sax wax nañu ne jógewut fa sëriñ ba nekk waaye ci biir réew mi dong la jóge ñu bëggoon a dugal ci biir nit ñi ay xalaat ba xam bu loolu amoon na muy deme sëriñ bi nekkatul jamono bàyyi na fi mag ñépp jaxasoo ba mu des ku ñuy wax soxna Fati Isa Jóob moo ne maam Cerno Birahim yéen da ngeen di ay ndaw te seen pas-pas mat naa seetaat te yit xamu leen ki ngeen àndal kum doon man maa ko xam te lu wér la ne man mii di wax ak yéen maa ko ne bés ku ragal ci bàmmeel laa ca sëriñ bi ne ko xanaa bu ma la ci dugalee da nga ca ñeme mu nekko ko loolu mu ne maa la cay dugal te maa ngi nii ne jomm ne nopp lu mu wax dana ko def kooku moo delloosiwaat nii ci ñenn ñi mën a dellusi kon yoon na te xamuñ fu mu jëm xamutoon fu mu jëm moom itam loolu fan la ci nit ñi toll gàddaay gi nit ñuy gàddaay léegi mooy toog ba nawet amatul rek nawet bi naaw ñu ne nañ seete feneen kese fu ñu demee fu nawet ba baaxee ma nañ faa toog loolu bokkut ak li suñ bi defoon ci gàddaay kon gàddaay gi kenn ku nekk war naa xool lam ca def moom ak fa mu ca mooy fi waxee ne xusuuri xalaat wal ahlu anni tafarraqat li madxi alladi anhu almadihu qasidu kii ma jaral lii daal lu ma ko defal lu tuuti la ci liñ ko war a defal mooy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalu suñu borom waaye doyloo yàlla gu wóor daf cay am ak teg sa tànk siraatal mustaqim loolu it waris naa laaj ba xam nit ñi fuñ fuñ ko tolloogun bañ dalee màgg ak léegi diggante màggal ak moroom ci lu ñu cay def doyloo yàlla moo waxoon ne sama jaamu yàlla maa ngi ko teg ci alxuraan nee na yonent bi nee na ju waroom xam-xam yi nee na sëriñ bi xamoon na ne yàlla amu ko moom dong jeexalu ko fu waaye baaxe nangul na la ko dal ne gànnaay yi noonu yi nga xam ne moom lañ bot ci jëmale ma ko maa ngi ko rékkee ci jëfe alxuraan nee na yonent bi nee na boroom xam-xam yi nee na ñu maandu ña banaytu taatiya bi itibaaci bi wal xadiisi wal ijmaaci salabtu bil kitaabi wal xadiisi wa bi tuqaa aslixata al xabiisi loolu fan la ci nit ñi toll diggante ñaari màggal yi daaw ak seen diggante ak seen pas-pas seen diggante ak seen borom fan lañ ko toll loolu ku ne mën na ko xam. su boobaa danañ xam ba xam ci sëñ bi lañ topp wala de su manqué lu néew néew nañ seetaat seen bopp waaye moo waxoon ne it léppam yàlla la ko jox du jox benn spécialiste aw yaramam naa ko seetal ma ko du takk ay weer ngir gis bi gën a neex du yor ay beek ndax dox bi gën a neex daawul yor aw aw jàkk daawul yor aw yat danañ sempet di dox di dem ndax yàlla la bàyyee boppam muy spécialiste am nee na it ci noonu ma def sama diggante ak suñu borom bàyyee ko sama lépp ci laa dem ba gisatuma kuy buur buurlu naan mooy yàlla wala moo am doole gisatuma ci kenn tey rafet naa njortu ci ne li nekk seen loxo yi lépp itam te yàlla jox leen ko ñu nangoon yàlla leen ko jox ci sama loxo lay mujj lillahi jalla yadi wal qalbu maa badani wa saaqa lii fawqa maa inda sulaytini inshaahu man bihi abgi zukuuna bihi dunya wa uxra bi tasxihin wa tawtini waaye fii it mat naa taxaw ba xam lan la ci nit ñi defagoon da nga gis koo xam ne ñëpp dañuy am ci moom yaakaar lu ne ñu ne mën na ko dindi waaye du mujj ludul woo as ngóor si naa ko summil mbub mu ndaw mi mu summi ko xaddamikul mu xaddamiku bàyyil café mu bàyyi café bàyyil ataaya mu bàyyi ataaya te café murid nee nañ ci mu gi la bokk waaye am na ñoo xam ne kenn as ngóor leen bàyyi leen café rek ñu daal ko ñu doxee bàyyi lañ toll kon ci bàyyee suñu bopp ak suñu boroom ci diggante magalug daaw ak ren bii nga xam ne moom lay mujj nag moom ñépp war nañ cee taxaw te ragal ci yàlla te xool ci seen digganteeg sëriñ bi sëriñ bi nee na moo bindoon ci géej ga ba mu nekkee ci tukki bi moo ko yàlla képp kenn fekk wut ne sama loxo lii moom duma ko tàllal tubaab ak kuy tubaab tubaab la kuy tubaab tubaab la mooy ñi nga xam ne rek luñ leen jañ jañ luñ leen jiñ jiñ doole ak kàttan jaami suñu boroom képp lañ yu tuuti yoo xam ne diggante ban képp lañ ak ndox kepp katabtu fi lbaxri anni la amuddu yadi ila nasara abidi lmaai wa tiini nasara yi dañ fiy jóge jóge nañ fi ci ak nakam la ci wuuteem waaye ñi fi nekk di dox la nasaraa yi doon dox yépp tam mbind bay réew day walaabal ci ñoom diggante laa wax rek ne bàyyi naa xool ba xam suñu digganteek ñooñu nu ñu def ak ñoom waxoon nañu fi daaw ne mboolem ndaje yi ñuy am yépp di ko am ak ñooñu nga xam ne ñoo fi wutu nguurug tubaab bi liñ leen di laaj lépp lees man la lees mën a am la liñ leen di laaj lépp lees mën a am la yi gën a ñàkk solo lañ fay laaj waaye bokk yi su fekkonte ne ñi ngi bàyyi xel tomb yooyu mu ñu tudd yépp nëgë ci bilan lañuy ñuy toll nañ ko fi juñ gi daaw màggalug Tuubaa am na xàq ci murit yi ci seen digganteeg sëriñ bi seen digganteeg li leen sëriñ bi defal lépp dañ di ko wax guddeeg bëccëg kenn ku nekk xam moo xam la tax mu di ko wax màggalug Tuubaa jaa'isa aalamiya boo xam ne alxuraan lay doon jekkoon na ci màggal gi jaa'isa boo xam ne dañ koy joxe ci ku gën a dégg xadiis ku ëpp lu mu ci mokkal màggal gi yeyoo ko jaayisa ku gën a mokk gën a ëpp lu mokkal ci xasida Sëriñ Tuubaa yi kan moo ko gën a mën a tasaare li ci Sëriñ Tuubaa wax jaayisa boo ko déggee mooy ab neexal mooy moom la ñuy wax prix piri bu mag boo xam ne ay millions lay doon ba bu ëllëgee ki si kenn ku nekk roy ko ca dëkk ba mu dëkk mu baax lépp di dox ñi ngi ndokkeel nag bu baax a baax a baax ñi nga xam ne góor góorgóorlu na ñoom ba doon joxe ay jawaïs ay neexal ay prix ci alxuraan ak ña doon joxe ay prix di joxe ay oto ak i biyey màkka ak ay limi xaalis yu takku ci xasaa yi ñooñu na nga leen di ndokkeel di leen ñaan ñu jëmale ko kanam ndax liggéeyu sëriñ bi dara féetewu ca soññ niñ ci alxuraan soññ leen ci ana nu ñuy wéetale yàlla ak nu ñuy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bi sant giñ ciy wax nag sant alhamdu wa shukru maan lillahi ala nabi wala di abdillahi bi sëriñ bi bind ak alhamdu lil xaqil mubin ak shakartuhu isxastani mooy cantu xol ak ay cër cantu xol su fekkee moom lañu woote euh, bépp xol boo xam ne yàlla kese moo ca nekk bu santee yàlla nangu waaye bépp xol boo xam ne am na lu ci rax yàlla booba xol mën a gut a sant na ko waajal muy benn waaye cantug yaram it muy yi cër yi def it bu fekkee cër yi tënkuñu leen ci li neex yàlla it cër yi mën a ñoo sant nañ dem tàggatu ci tàggatu ji ba mën a moytu tere suñu borom yi ba mën a teg tegu ci ndigali suñu borom yi door a mën a sant bu dee cant alal la koy def it alal ju lewut joo xam ne nu nekk la ko nit di amee it mën a gut a sant mën a gut a sant balaa mën a sant suñu borom jàppe ko kent mooy kooka day génne ci xolam ba lu dul yàlla waaye balaa ay cëram mën a sant it cëram daf koy tegg ci lépp yàlla tere ba mu tàmm ko mu soog a sant ci ay cër su dee alal koy def it muy fexe ba la muy am di ca sant gu si néew mu doon lu lew fekk xol ba mel na la war a mel cër ya mel na war a mel ndax baatub santaane ci wolof kat la ñuy wax ne moom la sëñ bi wax ci ma ci bis bi nañ ma ci santale yàlla kon daa santaane ab liggéey santaane ab liggéey nag ki koy daan def ci ñun ñu dëkk ci kaw nga xam nañ ko mooy xam ne ñax da koo ëpp doole ca toolam ba mu sant ko waa dëkk ba te dëkk kaw yépp ànd nañ juboo si ñeente ne ku ab toolam ëpp doole su ñaanee su santaanee nañ ko liggéeyali ngir yàlla ana buñ ñu demee lu fay def lam doon liggéey rek ca la nekk di dagg ñax ma di fa bàyyi gàncax ga di ko daggal ñax ma di ko fa bàyyil gàncax ga képp noonu lañ koy liggéeyee xolam sedd ca waaye su dee am ndéqi la santaane it suñ demee ànd nañu def dañuy dañ koy daggal gàncax ga taral ko ko naafal ko ko bàyyil ko fa salguf ba fa sax ak yeneen gàncax yi nga xam ne amul njariñ nit mënu koo jariñoo moo ne ku ñu may soxna yit daana def li ñuy wax awal ab goroom aw bu astoolam toolam àggee gannaaw moom amagu toolub lëm bu ab goroom demee ba taxaw ndax li ñuy wax benn boroom loxo la mu ànd ak ay xaritam ak i wëllëreem ñu àndandoo ne cëpp ci dëkk ba bett kooka lool wan ko ngóora ak njàmbar ne fuuf tool ba ci am ngont mu gàtt ñenn ñi noonu la ñuy teggee ñibbi wane ne man dara taxu mi fa yow loolu wan leen ni ma toll rek ñenn ñi jaar si kër ga jàngu fa ñenn ñi jaar fa jaar fa naan fa askan fa jàll waaye duñu fa bëgg dara kuy maye kuy kuy dem ci santalam ni noonu nga cay demee kuy santale sëñ bi yàlla dangay fexe ba sa xol bi jàngat tawxiidi sëriñ bi ba yàlla képp dëkke ko ndax yàlla xëjut fenn ak lenn. daf danga ko fe nit ki da ko fe teg moom kenn wala yàlla génn bàyyi fa loola te loolu amul ko njariñ waaye ba koy sant di ko sant la yàlla ci ay cërit ku séen xam kooka daa war a danga ko tàggat ay cëram ba spécialiste benn la koy jox muy subhanahu wa taala te du ko du ko jëme fenn ci cëram yi ak gum mu ca mën a doon fu yàllay tare waaye alal ji mi am di ko ci def di ko ko ci defal it mu doon alal joo xam ne ju leew doom mu lay doon lum néew néew yàlla na na ci yàlla yóbbu ak jàmm te may ñu di ko dégg te saa su nekk bu dellusee suñu boroom dimb lañu ci barkab sëriñ bi ba suñu xol yi set wicc ci lu dul yàlla suñu cër yi laggi lageet ci jëfe ndigali suñu borom yi waaye suñu alal yi ñu amee ko si néewit yàlla na yàlla def muy néew ak a bari mu doon lu lew alal yooyu it dinañ ko dellusiwaat ndax sëriñ bi daa jox wàll ndigal ñu génne ay asaka yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp te musul ñu ci seytaane ak ay paktalam te balaa magal si dellusi ne wu nekk jàngat balaa magal ga dellusi ba xam ne muy màggale ren yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin Touba Technoplus mi ngi fii ci marché Ocass centre commercial Daaru Xudoos lépp lu ngeen soxla mu aju ci matériel informatique bu mu mën a doon bureautique ba ci électronique ba ci ay impression ci grand format adresse bi benn la Touba Technoplus ay imprimante à recyclage automatique ay cartouche imprimante ay clé USB ba ci 64 giga modem routeur photocopieuse papier ay câble de réseau ay téléphone portable ba ci ay téléviseur LED ci dimension yépp bu dee da ngeen soxla ay impression ci ay bâche yu mag ci dimension ba ngeen soxla ba ci ay affiche publicitaire ay impression yu jëm ci ay t ay photo ci dimension yépp adresse bi benn la Touba Technoplus